gannaaw bu ñu jullee ci yonent bi sant xaadima rasul euh, ñoo ngi leen di siyaar di leen delloo yëgal na ñu ngi feddali laxasaayi rek jublu ci liggéey bi nga xamante ne bi moom la Cheikh Arif loo daan jiite ca Sannoosi gannaaw bu ci amee ndigal loo xam ne ci sëñ Fallu Mbàkke la ko jëlee woon njëkk faa taxaw def fa baas tàmbali liggéeyal sëriñ tubaa ba tey liggéey bi àgg fii kenn ku ne xaj moom la ñuy sababu di ci woo mbooleem ku di mbokki taalibe mbooleem ku di jullit ñu ngi lay woo ci bis boobu ndax kat kaa ñu liggéeyal sëñ Tuubaa moom képp ku la ciy woo yaakaar naa boo ko mënee fay sax yaa ko war a fay ñoo ngi woo suñu mbokk yëpp nag euh, kàddu yi may yëkkati it yëkkatiwu ma ko ci sama jëmmi bopp dama ko yëkkati sama jëmmi waajur muy sëriñ Sànno Lo mi nga xam ne moo toog jotaayu sa ñaari te xam ne am na ngant moo sabab mu yabal ma fi ma ñëw toog Euh, sëriñ nee na mi ngi woow mboolem fukk jullit nekk mboolem fukk taalibe nekk ndax boo waxee jullit rek jeexal na ñëpp woowul murit woowul tijaan ñëpp la boole woo ngir liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu sëñ aarif bi nga xam ne mooy liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga xam ne sëñ aarif a ko sampoon ah kenn ku ci ne boo fa ñëwee da nga fa gis sa bopp ak ci lu mu mën a doon ndax liggéey boo xam ne bañ koy tàmbali mbaarum sàkket la woon dem tey ba àgg foo xamante ni bi jéggi na dayo kon kenn ku ne xam ne ne fam samp woon lu wér la ndax bu fekkoonte ne bii daa samp ciy caaxaan du dox ci dara waaye mel moom moo ko doon woote ba tey ñëpp wuy si nañ ko jëmmam taxul nag waaye jëmmi sëñ Tuubaa a tax kon mi ngi ciy woo sëriñ képp koo xamante ne bii yaa ngi wax asadu an la ilaha illallah mi ngi lay woo ci bis boobee ngont mi nga xam ne nar noon koo def bu ne suba la màggal ga nag ñoo ngi koy cërale soxna jaara ndax jortu nan ne lépp lu murid di liggéey te booloo ci soxna jaara rek sa loxo des na ci kon ñoo ngi ko ci and ak ñepp di ci wone képp koo xamante bi ak fo mën ne ku fonk soxna jaara nga ku bëgg soxna jaara nga ñoo lay wo ci bis bobu magal gi nak rendey spécial ndax man dama amul lu dugg señ basiw buñu ma wo te man ne ci daara ji tak dar di laxasaayu ma ngi wo kep ko xamne ne man ngaa laxasaayul señ basiru mbacke wala nga laxasaayul señ mustafa basiw ma ngi leen di wo ci bis bobu ñoo ngi leen di wo di ñaan suñu borom def ngeen ñew fa ci jamm te lepp lo xamne luñ fa jëf la yalla ne jëf ju señ touba nangu te bu ko fayee yàlla nañ ci jaruñoo ak mboolem fu jullit mën a ne sëriñ nee na mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn fu ci waay mën a rek rek mi ngi lay woo nee na mi ngi woo suñ mbokk is bu tarxiya yi ak mboolem fu jullit nekk rek mi ngi leen di woo it su préfet ak préfet bi nga xamante ne bii moo nekk Kébémer ñoo ngi woo gouverneur ci Louga ak suñ mbokk mi nga xam ne suñ mbokk dara la ñu koy wax sëñ Moustapha Diop ñoo ngi koy woo ci bis bi ndax waxtu wu ne taxawaayam rafet na ci ci gannaaw bu loolu jàllee ci jiital ci ñi ñu jiital gannaaw bu ñu tuddee sëñ Muntaxa ba pare maanaam ñu ngi tudd sëñ Amdi Mbenda Fall ñoo ngi koy woo ndax moom it ni ñu ko waxee képp koo xam ne yaa ngi liggéey sëriñ Touba rek euh, war na caa feeñ ñoo ngi ko ci laaj ndigal laaj nañ ko ci ndigal ba mu jox ñu ci ndigal ñoo ngi tàmbali liggéey bi nag te jiital ko ci liggéey bi di ñaan daal ci barke Cheikh Ibra Fall lu fa waay jëf rek yàlla na jëf ju yàlla nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu auzu billahi min asheytaani bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa ñu fas yéene liggéeyal sëriñ bi di fàttali li jëm rek ci wàllu organisation ci màggal gi ndax am ay coppet yu bari yoo xam ni def nañ ko ci liggéey bi ngir bëgg rek mu gën a jag gën a méngook ni ko sëriñ bi bëggee ndax da di liggéey boo xam ne nuru na lu yomb te jafe ndax ki ñuy liggéeyal ba tax na ren ji ñu am pas-pasu bu ñu umee ba ca gannaaw ëllëg sa bu ñu umee rek ba ba ba ca suba ga comité bu mag boo xam ne dañuy teel a dem mën a saytu liggéey bi ndax dañ daan seetlu ni buñ mësaana ñëw ci bisu buñ ne suba la màggal gi bëgg a taxawal lu bari daana indi ay gàllankoor ren nag ñu fas yéene am ay coppet yu bëree bëri ci wàllu organisation bi ba tax na ñu tabb ay jëwriñ yu bëree bëri ci la féete ca waañ wa lu ci mel ni Serigne Khadim Lo ak Serigne Cheikh Sey la ca baas ba ña xam ne ñooy taxaw wàllu organisation Serigne Cheikh Lo ña àndal buñ nee suba la magal ga ci ngontum xasida ma sëriñ lok loog ñami andal warat saytu liggéey boba ñi ngi leen ci sonj di ci sonju fépp fu ab julit nek di xam leen ni bis bi nga xam ni moy bisub magaluk sanusi wote wuñ ko ngir puukare wote wuñ ko ngir dara day teraanga jo xamni serigne touba moko jeglel bepp julit bu nek ci kaw suuf ñu am pas passu nak teraanga joju bokku ñepp ndax barki démb kat serigne Moussa mi ngi fatali ñu diñ wax ni ci sëñ Aarif keroog ba ci basirou ne ko dama bëgg sa dama bëgg laaju bis te sama xel nekkoon ci bis bee sëñ Tuubaa ñëwoon sànnoosi Seigne Basiiru lam ko ci tegal moy yéen di kenn ëpp leenu bis daa di jël loxom ni lako def daa di roof ci posam genné ñett junni dal ne ko boo àggee fekk ñuy dox na nga waxu ba àggee fekk ñuy waxu na nga naaw Seigne Moussa nak lam ci teg moy Seigne Arif bam mu xolut ko dox xolut ko waxu dafa àgg rek na fër naaw yéeni jooja nak ak pas-pas boba ak yaatal goga mom lañ am yéene dolli ba taxna ren ji ñu taxaw taxaway bi fas yéene lépp gën a jàkk lépp gën a yiw ci baaxuk sëriñ bi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw nuyoo beeg siyaar bi euh, ñoo ngi ciy woyit euh, képp koo xam ne bi ne euh, yaa ngi bokk ci ndaam ak noo ci a bokkee moo xam da ngaa sotoo ci saaman ibnu suufi wala nga sotoo ci daam isa ak noo ci mën a bokke wala ci maxtaar wala ci omar noonu la ni wooye képp koo xam ne bi ne yow yaa ngi bokk ci aali Sénégal Gueye aali Sénégal Gueye aali Sénégal Gueye nag buñ ko waxee buñ tuddee Sira a Coumba Gaynde Khoudia Coumba ak juróom-ñett doomam ak mboolem ñi bokkal daal di dugg ci kër Makhtar Khoudia Dramé nga ah, mi nga xam ne bi ah, moom la sunu borom dogaloon nga xam ne bi ne gi moo ko njëkkoon a def ah, ci la bokk it ñoo ngi ci woo képp koo xam ne bi yaa ngi ci côté a ndaam ak foo ci mën a bokkee fu ne moo xam sa dafa jébbul woon ci ndaam wala nu mu ci mën a bokk rek ñoo ngi lay ci woo bu a baax euh, duñ fàtte mukk euh, suñ mbokk yi nga xam ne bi nit euh, ñoom ñoo féete wàllum ñoo féete Dakar wala ñu féete Touba wala ñu féete fu mel Ndar wala fépp foo ne fa bi ñoo ngi ci woo tey ñaan sunu borom képp koo xam ne bi ne teewoon ko sunu borom defal la tawfeex barkeb borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye taalaa wa barakatu bokk jullit yi yéen yëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di woo sunu waa daayira bi di woo mbokk képp ku bokk ci ndaam si képp koo xam ne sii ne am nga fa ab cër ñu ngi lay woo ci suñu màggalu maam gi nga xam ne mooy bis ba nga xam ne moo la fa sëriñ Touba ñëwoon dikk dikk fa ñu di ko màggal at mu jot juróomi fan ci weeru koor gi waaye ñun jigéen ñi dañoo am ngontu maam jaara mun fa bëgg a def bu ne suba la ngontu bu ne suba la màggal ga na ñëpp ñëw te waajal ko bu baax a baax a baax dolli positif bi daan fa doxe ñu dolli ko bu baax a baax a baax teel a ñëw teel a toppatoo gan ñi ku ci bokk ku nekk na nga ñëw ak say xarit ak ko am mu meuna a ñëw rek ñu lay wo ca magal gëna ñepp ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gëreem di leen ñaanal jamm yalla leen yalla may ñu ngeen meuna a ñëw ca màggal ga assalam kon yeena deggando déggandoo yi nga xamne mo bayiko ci sun kilifa gu tedd gi di Cheikh Mouhamadou Bassir euh, teewal fi khalifa am bu tedd ba di Serigne Sanna kon kàddu yi ñoko deggando ñi ñaan nak magal gi kep ku ci teew rek yalla sun borom fajj say aajo bi rek biti waye ñi ngi soñu bu baax jëwlinu ni Tarqiyyah di Serigne Youssou Diop ci liggéey bi nga xam ne ñoo ko yàgg ànd at mu nekk mu yebal waa daara ji ñëw fa teew fa loolu lu ñu rafetlu la ñu ngi koy ànd ak moom di ci soññaat waa daara ji bu baax ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy amal waaye fàttewuñ daayira yi nga xam ne ay soppe la ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ak jànkat yi nga xam ne naka jekk dañ daan ñëw ci bis bi kon lii daal mooy li nga xam ne la fas yéene woon a indi ngir fàttali leen bis bu tedd bii nekk suñu kanam di màggalu Sanus ñuy ñaan suñu borom may ñu fekke ak tal ba ñépp ñu mën koo fekkee di wax ne képp ku fa ñëw rek yàlla na suñu borom faj say aajo biir ak biti wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.